subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah subhanallah kon daf ndax daa am benn kunta kunta am lu ma dëy ma bañ ay dara ay dara yi yëg ko ndax kon dañ leen di summi waaye ñu ne daal am na ay raaya ay diplôme d'honneur yoo xamante ne war nañ koo joxe am ñun koo jagleel ci bis bu màgg bii bu nu joxee diplôme yi nag ba pare ñu daldi jël pause ñuy ñaan cheikh xalifa bu baay bu cheikh daawudaa ngi noonu di taalibe te nangoo doon taalibe kese rek tubaar fakal la yàlla nañ ko defee nii ëllëg ñu gisanteeg Cheikh bu Mohamed Kunta nii mu wommate nu nii dugal nu àjjana Cheikh Mohamed Rafaay ñu bëgg nga yegsi El Hadji Adama Momar Seck Diène ñu ñaan ko mu yegsi li lépp liggéey bu ngeen liggéey ci kër gi la rek kooku di la jox raaye boobu sëñ Abdourahman Kunta ko jur rakki Cheikh al Bekaay jërëjëf loolu rafet na sëriñ Buuna Kunta ñu bëgg nga ñëw jox Cheikh Assane booy géey ci bari ñi liggéeyam la ci kër gi. bari ñi moom bokk na ci gox yi jëkk ci ay taalibe Ahlu Kunta yi daayira Bayern mi yàgg nañ koo dégg loolu rafet na sëriñ Xalil Kunta ñu woo ko ndax mu jox lii diplôme bi Cheikh Xarjata Kadam ca Bargny cheikh Karjata kadam ca barñi ndaysan taccu len li way boy liggéeyal liggéeyalal yalla wa sëñ sidi abdallah kunta sidi makhtar mi ngi ñew ñu jox ko cheikh ndey mbeng bu barñi Cheikh Ndey Mbeng ca Bargny li ma leen wax ci Bargny bokk ngeen ci ñi jiitu barñi Tëngéej yéen bokk ngeen ci ñi jiitu dëgg la. jërëjëf سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله